am na nu mbégte ci lañu mën a dellu si tey ngir dégtal leen seen émission yoonu njub wolof njaay nee na nen du bëreeg doj léebu bi dafay tënk li nu nar a jàng tey ci mbind mu sell mi nen warula bëreeg doj waaye tey ji dinañu gis la xewoon ba nen dee jéem a bëre ak doj ndaxte dinañu gis ni na buuru misira bëre woon ak yàlla aji kàttan ji ci njàng mi weesu gisoon nanu ni yàlla yónnee woon muusa ak aarona ca na ngir ñu génne bànni israel ci seen njaam ca misra dañu waxoon na ne aji sax ji yàllay israel nee na bàyyil sama mbooloo mu màggal ma ca màndiŋ ma wante na tontu leen ne kan mooy aji sax ji ba may dégg waxam di bàyyi israel xamuma aji sax ji te it duma bàyyi israel mu dem kon ci tënk gisoon nanu ne yàlla dogaloon na goreel bànni israel wante na moom li mu dogaloon mooy téye leen ni ay jaamam waaye nen du bëreeg doj jële ca ndam de nanu dellu si léegi ci tawret te réb gàddaay ga saar juróom ñaar ngir gis ni na doon jéema bëreeg yàlla mbind mi nee na musa ak aarona ñëw ci firaw na def ni ko aji sax ji digale woon aarona daldi jël yetam sànni ko ci kanamu firawna i dagam yet wa soppeleeku jaan firawna it daldi woo boroom xam-xam yi ak jibar yi bi mu ko defee sëriñu tariyaaxi misra yi daldi def ni aarona ak muusa ci seeni xërëm ku nekk sànni yetam mu doon jaan waaye yetu aarona daldi wann seeni yet nanu taxaw fi tuuti ndax gis ngeen bu baax ndoorteel bëre bi amoon ci diggante firawna ak yàlla ci wet gi gis nanu ci firawna aki sëriñam ci geneen wet gi muusa ak aarona gannaaw ba yetu aarona soppli ko jaan gis nanu ni sëriñi firawna defe nu ni mel ak seeni xarbaax ni mbind mi ne ku nekk sànni yetam mu doon jaan waaye yetu aarona daldi wann seeni yet mën nanu tënk li xewoon ci lii xam nanu ne kéemaan gi muusa ak aarona defoon ci yàlla la jóge woon amul werante waaye sëriñi na yi ñoom tamit def nañu kéemaan seen kàttan nag fu ñu ko jële ndax ci yàlla lañu ko jële mukk yàlla du xeex boppam kon nag fan la seen kàttan jóge sëriñi na ci nax nit ñi ak xam-xam bu ñuul lañu doon sukkanduk kon ci seytaane lañu jële seen doole waaw mbind mu sell mi daf nuy won ne seytaane am na doole te mën na def ay kéemaan sax waaye li wóor peng mooy yàllaa ko ëpp doole loolu moo waraloon yetu aarona wann yeti sëriñi na ya wante loolu lépp taxul woon na réccu te déglu kàddug yàlla déglu leen li mbind mi wax noonu aji sax ji ne firaw naa ngi dëgër bopp di bañ a bàyyi mbooloo mi mu dem bu firaw na xëyee suba teel dina dem ca ndox ma nanga ko xaar ca wetu dex ga yor yet wi soppali ko woon jaan nanga ko ne firaw na aji sax ji yàlla hébreu yi moo ma yónni woon ngir ma wax la ne bàyyil sama mbooloo mu dem jaamu ji ma ca màndig ma waaye nga bañ booba ba tey aji sax ji neena nii ngay xame ne man maay borom bi dinaa jël yet wi ma yor dóor ko ci ndoxu dex gi mu soppaleeku deret musa ak aarona daldi def ni ko aji sax ji digle woon aarona jël yet wi ci kanamu firaw na ak i dóor ko ci ndoxu dex gi ndoxu dex gi yépp soppaleeku mel ni deret jën yi dee dex gi daldi xasaw ba waa misra yi mënatuñ cee naan ndox maa ngi meloon ni deret ci réew misra mépp waaye jabarkati misra yi itam def nunu mel ak seeni xarbaax na dëgër bopp bañ a déglu aarona ak muusa ni ko aji sax ji waxe woon firaw na dem ñibbi bañ fu laal yooyu xewoon waa misra yépp di gas ci tefesu dex gi ngir naan ndax te mënuñu woon a naan ci ndoxu dex gi gannaaw bi aji sax ji dóore dex gi teg nañu ci juróom ñaari fan noonu aji sax ji ne musa demal ca kër na ne ko aji sax ji nee na bàyyil sama mbooloo mu dem jaamu ma soo leen bañee bàyyi ñu dem dinaa sóob sa réew ci musiba mbott yi dex gi dina fees dell aki i mbott dinañu yéeg dugg ba ci sa kër ci sa néeg ci sa lal dinañu dem ba ci sa këri dagg yi ak waa réew mi dem ba ci say puur ak fi ñuy noote mburu wante firaw na bëggul woona déglu artu yi bàyyi ko ci musa kon gannaaw dégg waxu yàlla soxalul na aji sax ji ne musa neel aarona mu jël yetam tàllal loxoom ci dex gi seyaan yi ak déeg yi te indi mbott yi ci réewum misira aarona daldi tàllal loxoom ci ndoxi misra yi mboot yi yéeg ci réew ma ba fees ko dell waaye jabarkati misra yi itam def nu ni mel ak seeni xarbaax dugal ñoom it ay mbott ca réew ma na woo musa ak aarona ne leen ñaan leen aji sax ji mu sorel ma mbott yi maak sama waa réew bu ko defee ma bàyyi mbooloo mi mu dem defal aji sax ji ay saraxi mala noonu musa ñaan aji sax ji ci mbirum mbott yi mu tegoon na naka noonu mbott yépp dee ñu for ci lu bare def ko ay jal yu mag ba réew ma xasaw waaye ba firawna gisee ne tuuti nooflaay am na mu daldi dëgër bopp dégluwul aarona ak muusa ni ko aji sax ji yégle woon noonu aji sax ji ne muusa nel aarona mu tàllal yetam dóor ci suuf si pënd bi doon ay yoo ci réewum misira mépp ñu def noonu aarona jël yatam tàllal loxoom daldi dóor ci suuf si yoo yi sam nit ñi ak jur gi ba daj réew misira mépp jibarkat yi itam def seeni xarbaax jéem a soppale ay yoo waaye mënuñu ko noonu yi daldi sam nit ñi ak jur gi jibarkat yi ne firawna kéemaanug yàlla la waaye firawna dëgër bopp dégluwul muusa ak aarona ni ko aji sax ji yégle woon ndax gis ngeen li xewoon ak jabarkat yi di sëriñi na yi gis nanu ba noppi ni ñu ame woon espeesu kàttan gu ñu jële ci seytaane loola tax jaare ko ci seeni xarbaax demoon nañu ba roy yàlla yi ba soppi tuuti ndox mu nekk deret te dugal ay mbott yu néew ca réew ma wante seen kàttan amoon na fu mu yem sëriñi firawna yi amuñu woon benn doole ngir dindi musiba yi yàlla wàcce woon ci réew misira te it gannaaw ba aarona dooree yetam ci suuf si te pënd bi doon ay yoo sëriñi tariyaax yi itam def seeni xarbaax jéem a soppali pënd bi ay yoo waaye mënuñu ko woon ci loolu nag dañu waxoon firawna ne kéemaanuk yàlla la ci lu leer gis nanu ne kàttanu sëriñ yi amoon na fu mu yem seytaane ci lu wóor am na kàttan te mën na may nit doole waaye doole jooju du weesu mukk àpp bi yàlla tëral yàlla dong mooy aji kàttan ji moom kenn mooy yàlla mi mën lépp te moom kenn mooy ki amul àpp waaye ba léegi na nanguwul woon loolu ba tey na doon na dëgër bopp te xalaat ne mënoon na bëreeg yàllay israel te jële ca ndam waaye nen warula bëreeg doj loolu ma tax mbind mi di nettali ni yàlla wàcce ci kaw firawna ak réew misra yeneen juróom ñaari musiba jaarale ko ci loxo yi musa ak arona waaye ndeysaan amunu jotu nettali musiba yooyu yépp mën nanu leen tudd rekk ñeenteelu musiba moo doon amoon na ay niiri weñ yu fees réew mi ak kër yi ba yàq lu bare ci juróomeelu musiba mi jàngaru ju metti daloon na mala ya te lu bare dee ca waaye dara deewul ci jurug bànni israel teewul firaw na dëgër bopp ba a bàyyi israel ñu dem noonu ay taab yu bona bon dal nit ña ak mala ya te mbind mi ne sëriñi firaw na ya sax mënuñu woon a taxaw ci kanamu muusa ndaxte taab yi dañu nekkoon ci seen yaram ni ñu nekke woon ci yaramu waa misra yépp ci juróom ñaareelu musiba mi tawoon na yuur gu metti mësula am mukk ci misra te yàq tool yépp loolu amee réew feesoon na ak ay njéeréer yu bare yu lekkoon li desoon ci li fi gi bàyyi woon ci juróom musiba ma nag yàlla ne musa tàllalal sa loxo ci asamaan ngir réew misira lëndëm lëndëm gu tar ba ñu mën koo yëg noonu diiru ñetti fan kenn gisul woon dara waaye ca gox ba bànni israel dëkkoon foofa leeroon na amul woon menn musiba sax mu daloon ci seen kaw waaye loolu lépp taxul woon firawna réccu ba bàyyi bànni israel ñu dem mbind mi nee sax firawna neewoon na musa génnal fii bu fi feeñati bés bu ma la gisatee keroog dinga dee des na meneen musiba mu yàlla wàcce woon ci kaw firawna ak euh, waa misira waaye dañuy xaar ba beneen yoon ngir gëstu ci ndaxte sunu jot léegi mu jeex nan lanu mën a tënke sunu njàngum tey nag xanaa nii gis nanu ni firawna doon fexe bëreek yàlla aji sax ji ndax firaw na ak ay sëriñam demoon nañu ba raw aji kàttan ji ndax mënoon nañu ko noot é kenn mënula jànkoonteeg yàlla te noot ko nen du bëreek doj kon nag lan lanu yàlla bëgg a wax jaarale ko ci li nu jàng tey mbind mi nee mbir yooyu leen daloon misaal la ci nun te bind nañu ko ngir artunu yàlla dafa nu bëgg artu yàlla dafa bëgg nu xool sunuy bopp bu baax yow miy déglu tey ndax faale nga kàddug yàlla ba déggal ko wala dangay bëreeg yàlla ni firaw na na ku nekk ci nun tontu ci biir xolam ndax nangu nga kàddu yàlla tekkiwul ndax nangu nga sa aaday maam wala seeni diine waaye ndax nangu nga cik woyof kàddu yàlla aji sax ji wala boog dangay jéem a yàlla nen du bërek nit dafa mel ni ab nen te kàddug yàlla ni aw doj wu rëy mbind mi neena nit ñax la ndamam di tóor tóor kese ñax day wow tóor tóor ruus waaye kàddug boroom bi day sax ba faw kàddug yàlla aji sax ji doj wu dëgër la te képp kuy sukkandiku ci doj woowu samp na dundam ci fondement bu dëgër waaye ku bañ a samp sa dund ci doj woowu di kàddug yàlla benn bés doju kàddug yàlla dina dal ci sa kaw rajaxe la nen du bëreek doj te nit du bëreek kàddug yàlla te rëcc ci mbugalu yàlla kon nag fii lanu war a yem tey jërë ngeen jëf ci déglu bi ndegam neex na yàlla ci njàng mi di ñëw dinanu gis ni yàlla jëfe woon ngir firaw na bàyyi bànni israel ñu génn misira su ngeen amee ay laaj ci li nu jàng tey bind leen ñu ci yoonu njub boîte postale 370 Saint-Louis yoonu njub BP 370 Saint-Louis kon nag ba beneen yoon yàlla na leen yàlla barkeel te ngeen xalaat ci li yonent yàlla Muusa bindoon ci tawret bi mu ne yàlla aji sax ji doj wu rëy la jëfam yépp mat na mooy yàlla ji am kóllëre te amul benn njubadi ku jub la ku ñàkk jaaxaan